xam ne ñoom la nekkaloon ci prison ba kon gis ngeen mbokk yi سوف نحتاج إلى عربة لنأتي بيوزرسيف dinañ soxla nag sareet pour jële Youssouf nag ndaxte buur bi loolu sax nañu ne beneen sareet ah mbokk yi gis ngeen day dangu naay googu ñu ñooñu yenu moom la Youssouf nga xalqa baa ngi noonu alxames waa ji ba ñaar fukki juróom baa ngi noonu ñu ngi jëm ci prison ba ñuy wax Zawira gàngu naay googu ngeen gis ñeele gàddu ko di daw mooy la nga xamee ni euh, ca lañu programme Yuusuf pour mu toog ci daal di ñëw waaye gis am ngeen ni am na gis-gis bu mu amoon ci nit ñi gàddu bant yi gàddu gàngu naay googu ndax nit da cee war a toog wala ndax dañoo war a takk ay gata pour tekki leen ñu commencé wàccal nit ñi seen tool kon ala kulli xaal lu am incha allah danañ ko gis. yéene nag ànd ak nga xam ni mooy Belarus euh, fas yéene jëm ca fa nga xam ni nag mooy mooy kaso ba ما الأمر؟ أرى أن جناب هورنهوب قد شرف سجن زويرة ثانية بقدومه mu ni gis naa ni Horenhog dafa ñëw tey ci kaso bi هو حر الحاكم أن الحاطب أبدى رغبته في رؤيته amin xawtib moo bëgg nag pour ñu dafa bëgg a gis ak Yuusuf bu Seydina Yuusuf alayhi salaam lan nara Yuusuf ba'da al-aan la'allaka da ngaa bëgg a wax ni kon da nga yóbbu Yuusuf te dootuñu ko gis yow kon da ngaa bëgg Yuusuf des si kaso boobu faaw mu di déedéet arju lahu al-xalaas lakin bëgg naa mu mucc kay lakin laa yas'alu alayya al-ibti'aadu anhu waaye ñun du yomb ci ñun pour ñu sori Yuusuf loolu du neex ñu xol kenn ci ñi tëj ci kaso bi attanul ci taxaliko Youssouf Youssouf lama stataana jamii'an tahammula sijni zawiran nekk gi mu nekk ci kaso bi kenn ci ñun du mën a dékku nekk gi mu nekk ci kaso bi wéttal gi ñu Youssouf di wéttali looloo tax ñu ñoo ñoo ñu mën a des ci kaso bi waaye tamit nee na yóbbu yóbbul Horin Hop ca Kidami nga xam ne moo jiite kaso bi ngir ñu mën a jaamaarloo ak Youssouf ndaxte buur bi joxe na dogal nee na nañ ko jël nañ ko jël si ndax dafa soxla Youssouf léegi la ko soxna si waxoon ne woon na ko solution bi daal yaakaar naa ka firi gént gi rek moo ko mën a joxe dinaa rus ma war a wax ak moom nag yàlla na jàmm wàcc yonent bi yàlla bi yàlla na jàmm wàcc yow tamit ngi nuyu xorin ban xibaar nga indi dañoo ñëw ànd ak yow yóbbu la ci kilifa ga amin xawtib ki jiite pale bi mooy xorin xob ànd naag ñun ngir ànd ak yow yóbbu la jële la ci fii waaye yóbbu la ndeysaan ca buur ba waaye mbokk yi gestu na ñi nga xamee ne ñoo ay wéttu la muy prisonniers yi ما زال قلبي متخنا بفعل سهام الكيد ولن أترك السجن معلم يتم تمام الاتهامات الموجهة إلي لكن الحاكم قد أمر waaye ba tey sama xol mayu ma xaw rek tuuma yi ñu ma tuumaloon laa bëgg mu tegee nee na su fekkee ne dañ maa génn ci kaso bi te tuuma yi ñu ma tegoon dindeekuwul kon day mel ni lañ ma tuumaaloon dëggal nee na ko déedéet kilifa gi baal na la kilifa gi baal na la dana la aar it lay sujet day sujet dina ma ne soxla moom baal mu baal moom كي كي كي كي baalu mooy ki tooñ man soxla ma ko ma baal nee na ko waaw bu fekkee din nañ tuuma ci yow nag soo demee ca sang ba nekk nee na ko soo demee ca waaja buur ba nekkoon na laaj jigéen ñi ñi nga xam ñoo doon dagg seen loxo lu tax ñu doon dagg seen loxo yi ndax suñ boroom am xam na pexe yi ma pexe loolu nee na ko lii occasion la dafay fexe noo génn فكر بخلاصك من السجن تتحظى بحماية أمن حوتب ألا يكفي هذا؟ nee na ko yow da nga bëgg yow da ngay am xéewalu Amin Xawtib aar la. nee na ko warkat kenn. أصلا قل لي بيلاروس أن يطلع الحاكم على تفاصيل ما جرى مع زليخة وبوتيفار nee na ko فزليخة léegi neel yu neel yu Xarkis demee mu wax li nga xam ne moo xew ci diggante sa diggante nag jigéen faqad ahsana ilayya tawala sinina wa rabbayani fi ni'matihi nee na ko bëgguma ñoom ñaar ñu tëj leen ndaxte rafetal nañ ci man ay ati at lakinnahuma ramayaka fi sijni li sanawat arju nee na ko waaye ñoom ñoo la tëj ci kaso ay at haqqo ma'rifatiha ya Yuzarsif dañoo war a xam sa jikko war a xam sa. waa jigéen ñooñu ngeen wax lan mooy seen lu xew seen diggante ak Yuusuf. nee na yéen daal bu ngeen demee laaj leen kilifa gi mu wax mu laaj jigéen ñi lu taxoon ñu dagg seen loxo yi. الكثيرون من أهل القصر والناس في مصر لا يزالون يذكرون تلك الحادثة. ñi ngi waxtaanee mbir moomu nga xam ne xewoon na si gerte yi jigéen ñi. سوف نرجع خليل الفاض. danañ delluwaat ak loxoy neen. waaye beneen yoon mooy ilal liqa mooy au revoir liqa loolu lay firi mooy au revoir ba keneen ñu gisawaat maanaam balaa yàgg daal nee na ko yow boo àndoon ak ñoom kay soo demee nga am wax Amin Xawtib li dox sa diggante ak Zulayqa loolu moo gënoon mënoon ngaa dem rek. laa taqlaq lan yatula al-amru xatta yaudu mbir mu du yàgg léegi gars yi dellusiwaat moom ci yaqin lay waxee. ndeysaan gis ngeen ko de mbokk yi leneen Yusuf wax mooy xam nga génn kaso neex na waaye nee na tuuma bi ñu ma tegoon ba tëj ma tuuma boobu laa bëgg mu teggee ndax su ma génn ci kaso bi dem noonu sama tuuma du teggee kon sart bala maa génn moom sart man léegi su ma kaa dégg ki nga xam ni ñu ngi sàkk pexe pour génn ko ci kaso bi muy tëral ay sart pour mu génn kaso il faut mu am ay sart waaw joxe na exercice nee na kilifa gi na nga laaj na nga xool mbiru jigéen ñi nga xam ne ñoo doon dagg seen loxo lu tax ñu doon dagg seen loxo yi moom question moom loo rek la bëgg xam bala moo génn ci carte bi daal faaw nga waxtaan jigéen ñi laaj leen lu tax ñu dagg seen loxo yi ah, na de te buur bi moom xamu ci dara. walakin ma alqadiya. waaw lu xewoon kon lan moo xewoon diggante jigéen ñi ak Youssouf. ayatu wax ma ko yan jigéen lay wax. هل يعلم أحدكم شيئا؟ ndax kenn xam na ci mbiru jigéen ñi dara waaw waaw على علم بالقضية man xam naa la xewoon إن سمحتم لي فسوف أجلب لكم النسوة أسرع إذا soo ma bàyyee soo ma joxee ndigal ma dem andi la jigéen ñi léegi ma dem andi la jigéen dañoo bëgg a xam li xew dawal andil ma jigéen ñi gaaw كما تريد moo kii gis ngeen buur bi moom Potifar gis nga feebar bi foofu feebar bi daanaka mi ngi koy gañe ndaxte moom tamit da ci am xol bu métti ndax day soxnaam te moo jiite woon mbir mi waaw xam ngeen Côte d'Ivoire coono yi muy daj damaa yaakaar ni daal mbir mii daal mooy la taxoon ñu denc xale bu góor bi lii ay at yu ay at yu ba paase la woon Zulayxa dafa dafa jokkoon xolam ci jaam boo xam ne jaamu Côte d'Ivoire la woon te it di woon ab jaam moom tamit. loolu nag moo di woon ay coow lu bari seen diggante ba tax ñoom su lay xaar daal di tëj daal di wax Potifar euh, mi na tëj ki nga xam ne mooy xale bu góor boobu ñuy wax Zartu kon boo ko xamul woon li xew waaye gis ngeen Potifar nag ah mi ngi noonu di fas yéene jëli jigéen andil leen ma Zulayxa ni mu gën a gaawee na ma fekk ci biir. لكن جناب بوتيفار على قطيعة مع السيدة زليخة la adri mais yow Poutivar dafa dafa doggante woon moom moo moo moo moo moo Zuleyxa. la adri ma alladi yuridu Poutivar min Zuleyxa ba'da sanawat. ma ne Poutivar li mu bëgg man xaw ma ko. mi ngi noonu. uridu qaa'imatan bi asmaa'i niswati allati qatta'na aydiyakum. nee na ko euh, turu jigéen ñi laa bëgg nga indi ma ko seen liste bi. ñi nga xam ni nekkoon euh, boole woon nga leen boole woon usersif mu ni lu muy soxla ci tur yi dafa bëgg yéen jigéen ñëpp ngeen teew ko daf leen a soxla jigéen ñi nga xam ni Zuleyxa ak Kalimama doon lañ leen tudd loolu yàlla ji muy Amin Xawtib moo laaj pour ñu dajale leen ñoom ñëpp daf leen a soxla lu xew lan moo tax mu ñu mu mu sàq pour ñu dem ci moom buur bi lan la bëgg ci jigéen ñi dafa bëgg Yuzarsif dafa bëgg génn Yuzarsif ci kaso bi waaye Yuzarsif moo ko sartal ni ko bala maa génn ci kaso bi rek faaw ma nga nga wax laaj mbiru jigéen ñi léegi nag Amin Xawtib moom nag mu dogal ne nag léegi faaw nag mu dajale jigéen ñi xam naa daf leen di atte rek. atte ñun ak jigéen ñun ak kii Youssouf waaw dinañ atte te xel dara néew ci xanaa ah yow Youssouf li nga seqoon ak moom li nga ko defoon ah. da nga ko bëgg a fàtte ci diggante bi xaju fi di. dama tooñ fi Youssouf tooñ gu rëy bëgg koo fàtte bu ah, bu wutee kay nit dafa bëgg a génn Youssouf nee na ko man ah, weeraange googu man xam naa xam naa képp koo xam ni. lii daal du leen lu dul fayu ka nga xam ne rek dencoon nañ ko ci kaso ci ànd ak tooñ ko waaw lu mën di am daal nee nañ la weer yow weer nañ la bu yàgg bu yàgg nga weer woon xanaa weeruwaat. isxabi mamuran wa axbiri niswata allawaati tadkuruhunna Zulayxa àndal ak kii ngeen dem ngeen andi jigéen ñi nga xam ne àndoon nañoo ak Zulayxa ñu daje léegi ci amin xawtit na jigéen ñëpp jëlal li si jigéen ñi. ñi participé woon ci fête googu Zuleyxa organisé woon nee na bàkkaar gën a rëy bàkkaar Zuleyxa لماذا رميت بهذا الفتى البريء في السجن لسنوات ban tontu laay indi rek su ma su ma eh, su ma ameen xawtib laajee mbiru xale bu góor boobu moom la may tontu man ah léegi gis nga woote nañ pour jigéen ñi Mimi Sabo mal amr Mimi Sabo ma ngoog kooku nga xarit Yusuf لقد دعا الحاكم أمين حوتب السيدة زليخة وسائر نساء الأشراف اللواتي حضرن وليمة زليخة النسوة التي قطعن أيديهن آه mooy jigéen ña daggoon seen loxo yi. <laughs> wa ma alladi yuriduhu alxaakim amin xawtib bi kulli tilka niswa. tawaqafni misaabu. amin xawtib lu mu bëgg ci jigéen ñooñu. uridu maarifata sabab alladi awda bi Yuzarsif ila sijn. ah xam naa dafa bëgg a xam sabab bi taxoon Yuzarsif dugg ci kaso bi. Ah, ah, ah, ak lan la seqoon eh, ak eh, jigéen ñi. Yuzarsif eh, laysa mudniban fa sawfa yaxruju min assijn. كم أرجو ذلك kon mu ngi def bu mbir mi leereen deful bàkkaar kon dana génn ci kaso bi وأن تتم معاقبة السيدة زليخة وسائر النسوة بالشرب ko noonu lañ bëggee Yuzarsif génn noonu laa bëggee Yuzarsif génn ci kaso bi waaye tamit ñu bëggal Zuleyxa الذي ألحقته بيوزرسيف وسوف ترى Zuleyxa li mu defoon yëpp dina ko fay tey dana fay njëg gi de ah xibaar bi day tas na léegi ñee moom ña nga ci seen débat bi ba léegi amaguñ solution mënaguñoo firi gént ga ñoom làbbe yi ak seetkat yi alixmaahu ما الأمر؟ جاء قائد حراس قصر بوتيفار رودامون إلى قصري وأخذ معه زوجتي مرتة ولماذا سمحت له إذا أتى بأمر من الخواتم Potifar jël na jigéen ñëpp boole nag sama jabar jigéen ñoo jël na sama soxna boole koog jigéen ñoo yóbbaale leen ci mbiru Yuzarsif moomu la yóbbu nañ leen ci Amin Xawsi mbiru Yuzarsif waaw waaw moom la de. لا تقل إن أمين حوتب أفرج عن يوزرسيف dangaa bëgg a wax ni Amin Xawtib day génne Yuzarsif ngir jàkkaarloog jigéen ñi nag waxtaan ak ñoom nee na man li ma jaaxal mooy Miretatin sama soxna laa koy muccal léegi yónnee nañ koo xam ni danañu xoolal ndax Yuzarsif génn na am déet ñoom li ñu bañ mooy Yuzarsif moom bu mu génn bu génn kaso rek dana nekk seen musiba. njàqare nag bala moo am dëgg mooy user bi génn ci boobu la njàqare gi tàmbali ci ñun nag man lan laa war a def nag ci mu nekk allahu akbar ah bokki Côte d'Ivoire ngi noonu jiitu waaye tamit euh, jigéen ñi bokkoon ci kii bi ñëpp ca cérémonie ba jigéen ñëpp lañu ñu daal di woo ca ca kii ba jigéen ñaa ngi noonu moom ñëpp ñu gurguree leen ñu yóbbu nag ca buur ba nimisaabu lan moo ñu woom mat Zuleyxa ak jigéen ñi ñëpp man kay xawma ci dara kooku la waa église ba yebal pour mu laaj lu xew waaye kenn nangu koo xam nga Youssouf condition la tëral. nee ñii daa mel ni jigéen ñu tedd ñi jigéen ñu dëkk bi lañ ñëpp dañoo dañoo yeew seen loxo yi jëme leen ci kas kii ba. lii moom wute na ak aada lii xamuñu ko woon de yow mi yow mi mi saabur xaar ñu foofu. mbiru buur moom du képp ci dugg. tey mooy ñetteelu bis bi yéen a ngi si làmbat rek mën leen a firi gént lan laay tontu amin xawtib su ma laajee ci mbirum gént mi lan laay tontu man xaw ma ko ba tey waxu leen dara dama naan ko ndax ñiy firi sama gént gi ñoom amuñu xam-xam ci firi gént gi. loolu laa koy wax dama naan ko dañoo dañoo yonjax ci seen i mbir firi gént yi danaa leen noppal benn ngeen andil ma firi ji li li li muy firi wala ma remplace amin xawtib ray leen yéen ñëpp yóbbu leen xar te sow ko ñaar mën a alixmaahu lu xew. damaa gis ku ci waar mu xommat Zuleyxa ak jigéen ñi dëkk bépp yóbbu leen ca palais Amin Xawtib ñoom ñëpp daal ma nga leen gurgé amaana mu yóbbu leen ca kaso ba bu fa jógee ndax xamoo lu xew laaj naa waaye kenn nangu maa toll atte baa ngoog yéen jigéen ñi am nga lu nga xew ca seen diggante ak Yuzarsif damaa bëgg a xam nag dëggantaan li xewoon. lan moo dex seen diggante ak Yuzarsif. loolu laa bëgg a xam tey tontu leen ma. ما خطبكن؟ هل ابتلعتن ألسنتكن؟ da ngeen a wan seen làmmiñ xanaa. والله لا علم لنا بصدور أي قبيح أو دنس من يوزر سيف يوزر سيف مثال للطهارة والتقوى ولم يعمل كل ذنب قط ولا يمكن لنا أن ننسب السوء والقبح إلى ملاك سماوي mënuñu koo askanale lu bon moom am baax rek nga xam ci moom kon kan moo def yor si seen diggante yéen kan moo tooñ ndax dafa def njuumte est-ce que dafa def benn mooy yàlla. تجبني زليخة Zuleyxa yow yaa may tontu ci laaj boobu li xewoon sa diggante ak Yuzarsif kan moo tooñ ndax da ngaa jàpp ni Yuzarsif moo tooñ wala wala tooñu dogu naa dogu naa ci ngeen wax li xew wér li bàyyi ba ngeen xam ne du ma du ma leen bàyyi noonu lu dul moom bëggal leen. jigéen ñi nangu jigéen ñi fi teew nangu gi nangu ni ñoom Yuusuf ku fegu la loolu man ànd naa ci te dégg naa ko léegi yow nag su lay xew lay déglu pour nga wax li xew nga léegi nag dëgg feeñ na waaye waraange dem na mbir min doon nëbb nag feeñ na léegi leer na nañ aw ma benn yoon nag li feeñ ci dëgg tey dëgg nag mooy damay nangu rek li nga xamee ni moo xew muy seetu Yuusuf Yuusuf mi nga xam ne dafa tegu ca laab man maa ko doon sàkku damaa dogu woon ci jege ko jox ko moom ma sos li nga xamee ni ay ay ay ay ay relation la sama diggante moom yoo xam ne dafa lënt waaye dafa bañ de nangulu ma loolu mu delloo ma ca ginnaaw ginnaaw ma ma ma daal di tooy samay pexe daal di tooy Yuusuf sa doom la woon maanaam xale la woon ca ca amoon na amoon nga doole ci def loo ko lu la neex yow nga am sa jëkkër lu tax nga def loolu yow yàlla nga ci yàlla yi dëkk bi ba pare soxna yàlla si nga ku ku bokk ci amul wut def bàkkaar bu rëy bi nga def kon nangu nga ni ki nag ki def bàkkaar bi la yow yaa doon def pexe yi. ba pare nga nga user si mi nga xam dafa set wécc nga denc ko ci kaso tooñ ko pare denc ko ci kaso bi ana uqirru bi waaw waaw loolu am de kama uqirru bi bari nangu naa loolu saxal naa ko innahu bari set saxal naa ne it user si dafa dafa set wécc moom moo set wécc allahu akbar ah ana mutaakida min annahu mazlum maaki xaq user sif man xam naa ne dañ koo tooñ xamoon naa loolu jigéen ñaa ngay waxaat nag waaye mbokk yi kii fu jëm نيم السابو كيف جم؟ نعم نعم يسابو هل يمكنك أن تذهب إلى يوزرسيف بهذه العربة؟ إلى يوزرسيف؟ ndax man ngaa dem ci Youssouf jël sareet bii dem. loolu kay xefetif mën naa ko. soo demee ni ko jigéen Zulayxa ak jigéen ñëpp nangu nañ yore seen bàkkaar. dana mucc ci kaso moom Youssouf kañ demal rek demal wax ko loolu ne ko jigéen ñi nangu nañ ñoo la tooñ ñoom ñëpp buur bi dajale leen. waaye yóbbu ko ci kaso ba ñuy wax Zawira léegi lam ko wax de demal nga ne Youssouf jigéen ñi nangu nañ ñu ñoo tooñ ñoo wàcc yoon wér nañ yéen jigéen ñi da ngeen doon dagg seen loxo ba ngeen gisee nga xam ne mooy Youssouf loolu am na loolu am na de seen loxo yi kay ñun ñoo ko daggoon Youssouf ku fegu la ku ku tar la ci na sax. لم تنطلي عليه ولا واحدة من مكائدنا مطلقا mu ni même pexe yi ñu def benn pexe bu bu mu daanu moom Youssouf xale bu mel noonu war a bëgg la waaye dama déggoon ci ay mbir yoo xam mënu mënu ko woon a gëm mënu ma ko woon a gëm jaaxaloon na ma trop man ba tey man yaa ji góoma loolu du lu bees kooku nit rek la du ko sell. kon lan moo tax góor gu mel noonu ngeen melokaan yu baax yooyu ngeen koy ngeen koy sàkkal pexe lan moo tax ngeen tëj ko ci kaso bi ak seen pexe pare tëj ko ci kaso lu waral loolu te nangu nañ ñoo def bàkkaar bi ñu ngi jéggalu bu baax ak ci kilifa gi ñu ngi lay ñaan nga baal ci man sama teewaay yéen user user tiif ngeen war a jéggalu waaye du man ngeen jéggalu yéen yéen a ko sànq ay at ngeen denc ko ci kaso bi. anta mudhnibun aydan ya janaba Potifar. moom ngeen war a jégalu. Potifar yow tamit def nga njumte gu rëy tooñ nga xale bu yor melokaan yu baax yi. ah raw ñëpp ci séri gént ëpp leen xam-xam. Hmm? nga xam ne amul morom ci fegu ak jiw nga denc ko ci kaso bi ay at ngir topp sa jabar. nee na ko li tax ma defoon loolu moom. لعل السجن كان السبيل الوحيد لكم أفواه المتطاولين dama gis ni su ma ko dencoon ci kaso bi mooy taxoon nit ñi téye seen làmmiñ ndaxte wax yi dafa bari woon trop ma bëgg naa ko tëj ci kaso bi أنني مذنب waaye ànd ak loolu lépp it nàkku naa ni man def maa def bàkkaar man maa tooñ إن سمحتم لي أطلب الإذن في الانصراف فورا أنا أشعر أنني لست may ndigal daal damaa bëgg a dellu لا مانع ndaxte damay yëg sama yaram loo xam daal neexul dara amul loolu amul problème terewuma loolu léegi mën ngaa dem demal nga dallu ji خذوا هؤلاء النسوة إلى سجن القصر المؤقت ريثما أرى ما أنا يوبلن يجيني يوبلن تكاسبا بما خول لا لا يدف نيوم buubu leen ñëpp yóbbu leen kaso ba ba ma xool seen biir. départ leen aywa dem leen dox leen yéen laay waxal yëngu leen aywa. lu leen dal yéen ngeen dem. ah Mimi Saabur agsi nañu mbokk léegi mën ngaa dellu nag xibaar boobu lay indil Yusuf القائد هورنهوب نعم جنرال الحاكم général bi إلى السجن برفقة بيناروس وأخبر يوزرسيف أن براءته demal ànd ak Benaroud قد ثبتت لدينا بشكل قاطع ngeen wax ni Youssouf sedd na. نحن نكن له الاحترام tegu na lañ ko tuumaal dañ na من أقرب الناس إليه léegi ñu ngi koy teral na ñëw ma bokk def ko ci nit ki ki ma gën a jege. teewal ko ci man ma teral ko jox ko cëram man mënatuma xaar sax gis Youssouf dama ko yàkkamte mënatuma sax xaar noonu laa yàkkamtee gis ak moom ah mbokk yi akbar kàddu ga jub na de léegi nag kon Youssouf seet na waaye buur bi nee na ah, andil leen ko. وسائر نساء مصر اللواتي دبرن لك المكيد والخدعة قبل جميعا بذنبك كلكم التي سبق ووجهناها إليك seetal nañ la tamit seede nañ ni yow seetal nañ la ba nga seede koo dara amin xawtib dana la génne léegi allahu akbar <laughs> mbokk yi mbékk mbokk waaye ñëpp ànd nañ ceeg moom waaye Yusuf xool leen ko mbokk yi innama aradtu an yaarifa Potifar ani lam axun ana lam axunhu la fi lxayb man damaa bëgg Potifar xam ni waruma ko waaw waruma ko woon di wax dëgg yàlla loolu soxna si defoon xaar amin xawsi tamit bëgg naa tamit buur bi xam ni man du ma warkat waaye bëgg naa tamit mu xam ne yàlla bëggul ñi nga xam ne ay warkat lañu. هلا أخبرتنا كيف تمكنت من مقاومة نساء مصر ومنعهن من أن يظفرن بك؟ léegi doo ñu wax nan nga def ba mucc ci jigéen ñi. Hmm? nan nga def ba mucc ci jigéen ñi wax ñu ko waay. ما كنت لأفتخر بنفسي وما أبرئ نفسي من العيب والتقصير. man du ma pookarewu man mënumaa de man mënumaa dañal sama bopp ci gàttañ yi ndaxte bakkan day day digle lu baax. lu dul ko yàlla yërëm waaye sama bakken mën na maa digal lu bon sax bu du woon yàlla mi sama boroom bu ma yàlla mu muccalul woon ci ayu jigéen ñi kon mën naa cee dugg ca feeg yàlla kuy baal la jaam yi ku leen yërëm la allahu akbar mbokk yi dégg nga léegi nee na sama bakken digal na ma lu bon mooy yàlla wax law an raa burhana rabbik demoon na ba bakkenam digal ko lu bon ba mu nar la la soxna sa naroon waaye yàlla indi burhaanam moo tax yàlla mu ne law laa an raha burhaana rabbi bu gisul woon ay preuve yu jóge ci boromam kon boo moytul rek mu dëgg ci ndëgg teraf moom la Yusuf seddalewaat si ni yàlla moo ma muccal waaye du man du sama jëmm ndax sama bakkan digaloon na ma lu bon léegi la nga sàttante woon ak boobu d'accord nañ jigéen ñëpp ni ñoom nekk ñoo tooñ. waaye man bëgguma nag ñu dugal ñu denc leen ñu fayee ko ñoom dugal leen ci kaso bi loolu ko waa ji wax ni ko nag buur bi nee na ñëpp lay jigéen ñëpp lay tëj nee na ko nag dana métti ci ñun boo fi jógee wax dëgg yàlla yow nekk gi nga nekkoon suñu wet moo moo ñu moo ñu moo ñu fàtte la woon sor biñ sori suñu jabar si yu kan la ñu wékku ginnaaw yi ginnaaw boo fi jógee mu ne yàlla mi ngi ak yéen ci jamono jëpp su ngeen yàlla tege yàlla seen kanam rek yàlla dana leen fàttaloo jafe-jafe-jafe yi kaso bi allahu akbar kon laaj nañ ko ci kañ lañ wéeru mu ne ci yàlla rek maa ngi leen di dig nii danaa leen ziar bi dama leen bàyyi ba mukk aw ma fii ñëw di leen وما الذي فعله يوزرسيف لهؤلاء السجناء حتى أحبوه وتعلقوا به يوزرسيف lan la def ba ba nit ñi bëggee ko ni يوزرسيف الصديق كان لهم بمثابة المدد والمرشد والمرتجع moo leen di tëbb moo leen di orienté moo leen teg ci yoon mooy seen sëriñ ne la kaso boo xam ne Youssouf Youssouf kaso bu mu nekkul ñun dootuñu ko mën a dund waaye Youssouf kay yow buur bi kay daf ñu waroon yóbbaale ànd ñoo yow wala sax mu bàyyi laan ñun dala waroon bàyyi ñun wala mu wala mu yóbbaale ñun ñëpp maa ngi leen di dénk ay kàddu yoo xam ne su ngeen ko jëfee daal yàlla na leen dimbali kaso mooy bàmmeelu ñuy dund mooy safara si nga xam ne mooy safara nattu palaasu rëccu la يستعينون بشقاء السجن فيصقلون نفوسهم ويزكونها dañuy dimbali ko ci texe texe di nekk ci kaso waaye da dana leen puus ba duñ mën a dégg ko ay jafe-jafe bu leen ko jàppee ab kaso nag bu leen ko jàppee comme comme comme bàmmeel ci yéen incha allah balaa yàgg dinaa ñëw seet si waat leen. ah mbokk yi Youssouf a ngi noonu génn kaso nag ma ngay tàggoog mbokk ya waaye ñoom nee nañ ko day nekk gi nga nekkoon ak ñun ci kaso bi moo ñu fàttaloo woon suñuy jabar fàttaloo woon suñu doom ñu koy ñaanal nag ndeysaan ah ña ngeen doon di dindi seen yéen takkoon ca tànk yéen ak loolu de wane léegi libre na moom na boppam ña ngi koy gunge ay jooy ndeysaan nee na ko sa mbokk yi nga nekkaloon fii bu leen fàtte de yéen yàlla aar la ñu ngi lay xaar yàlla nga am jàmm yooyu zarsi ah mbokk yi gëj naa gis gëj naa gis kii de juróom-ñetti at si kàddu gi ñu noonu di doog a génn. exercice fii ngay fii lañ la indil pour nga pour nga pour nga yéeg gars yi yóbbu la. man damaa sib toog ci kaw nit ñi damaa bëgg damaa ñëw ci àdduna pour dindi di diis diis bi waaye ñëw ma ñëw ma pour teg leen ay diis diis. nee ko doo déedéet doo daanu mën nga cee yëg mën ko déggoo ma de mën ko doo daanu mën ko déedéet man waxuma la yéeg ci kaw nee na ko waxuma waxuma daanu. waaye man bàyyil ma yëg ci fas yi rek bàyyil ma ànd ak fas yi rek mamnun fi amanillah janaabu yu sarsif tey mbokk yi irkab fi arabati fi amanillah yéegal ci sama saret bee ma yoroon lii ñu bëggoon mu toog ci mu ni man dama ñëw pour teggal nit ñi seen diis waaye ñëw moo pour teg leen ay diis diis waa ji na ko déedéet doo daanu mu ko déedéet déggoo ma waaw man li ma bëgg rek mooy nit ki ci sama xalaat mooy dem ba lii dañ gàddu ay nit di dox ak ñoom ah mbokk yi Youssouf gis noonu noonu génn na ci kaso bi nag waaye génn na nekk ko fegu génn na nekk ko set génn na ci condition yu leer yu ma tegal bala ñu maa génn kaso bi tuuma jiñ ma tuuma loon laa bëgg mu set gars yi ne ko demal rek yow koy boo génnee sa tuuma dina looy wane ni tuuma ji set na mu ni déedéet nañu woo jigéen ñu ñu waxtaan ak ñoom jigéen ñoo ma tuumaaloon ni man maa def lii nañ leen woo ñu laaj leen jigéen ñi nag nee nañu Yuusuf ku set la euh, Yuusuf deful dara euh, moo tax ñu tuddee ko Yuusuf ak Siddiq waaye Yuusuf al Afif ku dëggul ki nga xam ni dafa fegu kon mbokk yi ndaw ñi war nañ cee jàng loolu nit ko war naa fegu bu baax war naa fegu kem sa lay kàttanam te xaba sàmm boppam ba du def luñ koy dóore dóori yoon يمكنك اولا ان تستحم وتغير ثم بعد ذلك نتشرف léegi mën ngaa sangu changé sa yére yi bu ko defee nag danañu kontaan ci nga dajeeg buur bi mu ne ko waa loolu baax na moom waaw man sax bëgguma sax li lii ma sol nii muy yëre prison bi ma gis ak noonu buur bi ndaxte buur dañ ko war a jox cër waaye mbokk yi Malik ibnu Saar mi ngi noonu xool leen ko ndeysaan يوزرسيف xale bu góor bee kan la. Yuzarsif la. Yuzarsif. léegi génne nañ ko kaso. waaw Amin Xawti moo wax ñu génne ko ci kaso bi. Yuzarsif. waaye bu dee ci waa Misra mooy Yusuf. dafa moom la ma ngoog waajaan ko kooku Yusuf. Yusuf. allahu akbar mbokk yi. ay waay gis naa Yusuf waaye sama mbokk ma. gis nga ma ngi koy fàttaliku bañ koy génne ca teen ba moom Malik ibnu Zahra moom moo ko moo ko jëndoon ndeysaan jaayaat ko nag doon rëccu ñaar fukki at toog na fi nag ndeysaan pour gisaar Yusuf allahu akbar gis nga lépp mi ngi koy fàttaliku awa yàlla ma yàlla baal li ma def ci bàkkaar lan la yonent bi yàlla bi laa jaay de ay waay tumuraanke ngi nii waay waaye mbokk yi Malick waaye gis naa ka ma doon wër de gis naa ka ma doon wër muy Youssouf Youssouf mbay mbokk yi gis ngeen Malick ibn kontaan na كل ما نمر به هو بسببك waaye jigéen ñaa ngi noonu Zuleyxa ak mbokkam yi الفضيحة لنفسك ولنا yow li ñu dal lépp yaa ñu ko teg كل ما أقاسيه هو بسبب weer nga sa bopp weeraale nga ñu man tamit lu ma dal Yuusuf moo ma ko teg Yuzarsif moo ma ko teg de ولكنني أستعذب احتمال اللوم من يوزارسيف waaye nangu naa nag لقد ذهبت بماء مشيك وفضحت نفسك وفضحتنا وألقيت بيوزرسيف في السجن ثم أوديت بنا وبنفسك جدير بأمثالك أن يعلقهم أخناتون على المشروع لست وجيلة لذهاب ماء وجهي wala nee na ko yow fi mu nekk li li li li buur waroon def rek mooy yow takk la ci kaw comme ni mu takk bi naaru. ma uwajihukunna bi ghayra al-i'tidari minkunn wa talab al-'afw. nee na ko man mënu ma leen fay dara lu ma jéggal leen rek. Zulaykha anti qad hanat alayki karamatuki. defal dara bokk لما لا تكلمين الحارس yow لعله يرسل إلى بوتيفار wàcc nga sa bopp على إخراجنا te teraanga wàcc nga ko léegi yób yónnil ci Potifar mu def pexe mu ñu génn fii nag يبقوا عليكن هنا طويلا jërul tiit jërul jàq أنا هي المذنبة xam naa du ngeen fi yàgg lu bari لا شغل لهم معكن man rek maa def bàkkaar ألا تخشين أن تبقي في السجن yéen ñoom soxlawuñu leen yéen ñii est-ce que yaakaaroo ñu des ci kaso bi ba àdduna tukki هو ليس فيه سجن الحسن بهذا المكان خلاص بوقف هيك يجعلني أدرك كيف قضى يوزرسيس سنوات السجن léegi lii man bu ñu ma tëjee ci kaso bi dana dana ma mosal ma xam lan la Yuusuf doon daj ca kaso ba أقسى من هذا المكان بأضعاف سجن زويرة daal وأنا قد moo gën a moo gën a tar fii ma nekk منذ أكثر من عشر سنوات لسجني te yooyu yëpp maa ko sababoon lu tolloog fukki at mu nekk ci kaso ba kon man maa ko teg kon lu ma dal fii rek war naa ko mën a dégg mboolu mbokk yi mi ngi noonu mu ngi doo gis Youssouf depuis ba nga xamee ni jaayoon na ko lu tolloog ñaar fukki at waaye moom te mu nekk ku matal kóllëre bi nga bi mu nangoon ni def na bàkkaar jaay na yonent bi yàlla boobu mu ni dootuma ñibbi lu dul ma jaraat ko delloo ko ay mbokkam nga moo tax depuis booba léegi mi ngi ci dëkk bi ñibbiwul ngir nangu bàkkaar mbokk yi gis nga ñooñu ni ñu doon tuube ay bàkkaar ah, ni ñu doon tuube bàkkaar yéeme na ngeen Seydina Yusuf ba mu juumee njuumam googu juróom-ñaari at yi ko ci dolli mu ne yàlla nangu naa réewam nee na man yu seet ñi mos ba ma nekkee xale léegi nag damaa xamul nu mu war a mel nag ndaxte ginnaaw gis yàgg na kilifa gi ñuy wax xorin xob ak Yuusuf ñu ngi ñaan pour dugg si nag ñooy ndeysaan xam ngeen ni Amin Xawtib euh, Rabia mi gëj naa gis ak user si depuis ba nekkee xale ah, mbokk yi mi ngi noonu nag gis ngeen ko ab taar ba waaye dofu góor yàlla gu dëgër ci feeñ ci moom di alhayba waaye tamit ak sidq feeñ ci moom alwaria feeñ ci moom al iffa feeñ ci moom te laab yiw dëggu waaye tamit fegu li jigéen gaaral la àdduna gaaral la teraanga bu du jeex pour nga mooy ak moom yàlla mu fay ba yàlla feeñalaat na dëggam war dëgg lu yàgg-yàgg rek dëggay feeñ dëggay dëggay tax gis nga boo baa ngi fàttaliku bi nga xamee ni Yuusuf nekkoon na xale ñoo di woon ko fii mu tontoon buur bi tontu yu wér yu dëgg ba jommal leen ñu jël ceenu or googu sakk kooku set doom ji moo ko defoon ba pare rukoal ko waaye Yuusuf moom du rukoal ku dul yàlla loolu la góor loolu la bu comme ni nga ko defee woon rek bu njëkkoon ba tey tey su jootaloo rokkoo aloo ne ko yal na amin xawtib raabi dund mu ne sirikatu gént bu xereñ bi yal na dund muy Yuzarsif jigéen ji nga euh, ki nga xam dafa fegu ca ca jiw kooku maa ngi koy nuyu. yow Yuzarsif baa yaa ngi fàttaliku yaa ngi Potifar bi ngeen daje woon ak man. dajeeg sama baay mu ni tey nag daje nag amin xawte mu mag moom nga xam ni mooy amin xawte mu ndaw waaye mbokk yi ñu xool Yuusuf ndeysaan mi ngi noonu jàkkaarloog sees bi waaye lan la xalaat allahu akbar teraa nga jëkk ko bàyyi waxoon yëpp gis na ko bis ci bis yi di nga nekk mbir dana kawe da nekk ku teg allahu akbar mbokk yi loolu la xalaat bala muy toog ci fëte bi gis ngeen ko la ko bàyyi waxoon yëpp dellusiwaat na ci moom ni ko bis dina ñëw nga tedd nga nekk ko طيبة كنا على حق عندما أكبرنا يوزارسيف إنه جميل حقا من لحظة سماع تعبيرك لمن وأنا أنتظر أن ألتقي بك ومنذ تبينت لي براءتك لا ينفعني شعور بالذنب والتقصير te tak teg mi ngi may jàpp ba léegi di ma fàttali lu bëri. lan moo tax ku mel ni yow ñu koy denc kaso bi ñëpp ñëpp nag jigéen yóbbu naa leen kaso ngir yow. nee na ko waaye nag man wax dëgg bëgguma nag nga tëj jigéen ñi daal ci kaso bi mos a leen nga baal leen nee na ko jéggal gi nga jéggale ak mbaax gi nga baaxee yokk na cër bu ma la gën a jox. kon danañu baal jigéen ñi gis bis nit ginnaaw tey. dégg naa ñu lay tagg depuis ba nga nekkee xale. waaye li ma li ma gisoon li ma ko doon dégg li ma gis seef gën a rëy. nee na ko bu ma tagg ndax man yeyoo ma loolu. أنت كيف تقوم nee na ko laaj yi yëpp laaj yi maa ngi ko doon xaar. المعبرون في مصر يقرؤون الأوراد الخاصة ويستعينون بما يحوزونه من العدة اللازمة للتعبير nee na ko ñi ñi firi gént ñoom ay weer la ñuy def pour firi gént waaye yow loolu jaaxal na ma loolu xam-xam la bu ma yàlla jox subhaanahu wa taala laqad saxa ma samituhu ank man aw ma lu may wax lu jóge ci man li nga li ma waxaat dé li nga wax li nga wax dégg naa ko gëm naa ko kon yow doo jaamu amun ne ko waaw man dama leen dama jaamu amul wax dëgg. هذه الحقيقة قد أفرحتني كثيرا وصرت أكثر احتراما عندي أن لا تسجد للآلهة المتعددة ولا dëgg gi nga wax nag ndeysaan ah, kontaan loo na ma ca gën naa laa jox cër. comme que bokk ci ñi topp amul rek. تعلم أن عالي المقام من حوطب لا يؤمن أيضا بآلهة المعبد ndax xam nga ni amiin amiin kilifa gi itam moo tax xam moom gëmul gëmul gëmul gëmul lii nga xam ni mooy nee na ko nag dama bëgg nag nga teewal ñi nga xam ne ñooy njabarkat yi ak ñi nga xam ni ñooy firikat yi ñu teew jàkkaarloo yu sar siif. nee na ko ah dooley aamun day dana wàññeeku. nee na ko ñi nga xam ne ñooy jaamu maabat bi ñoom ñëpp loolu seen doole mënu ko wàññi. waaw waaye bu dee nit ñi gëm nañ ko moom dana wàññi doole amun. nee na koo yóbbu Yuusuf nag moom dina mu dallu foofu noppalu. wool kilifa yi tiiba yëpp ñëpp ñu ñëw ci kas ñu ñëw ci pale bi. bu ko defee mu woote benn cérémonie bu mag boo xam ni Yuusuf dana jàkkaarloog ña doon firi gént yi di seet nag kan ci ñoom moo ëpp xam-xam ah beneen woote ngi noonu de waaye mbokk yi bu leen fàtte nii ba tey euh, labbe yi nga xam ne ñoom lañ joxoon pour ñu firi gént ba tey ña ngi seen i déwéadeet benn fan nag moo leen dese woon ñu ngi noonu ndeysaan waaye man daal yéefar bii nga xam ne Ibrahima mu Yusuf léegi nag no notaange na nañ na naa dal suñ kaw bu fekkee nangu nañ ni ilaa Yuzarsif yàlla Yuzarsif mooy dëgg tuskare la dana ñeel kii garde palais bi ñëw na pour daje ak yéen kilifa gi yàlla ji. amin aw si rabia dafay woo alix maawu ak ñiy firi gént gi pour ñu teew ca fale ba ngir mu déglu firi gi lan lañ lan la ñu wax ci gént gi ñoom seen kàddu gu mujj waa demal dinañ ñëw a ah, góor gi am na problème de parce que lépp moom lañ ko wékkoon léegi lu nar a wàcc suñ kaw danañu doyadal ci kanamu xale boo xam ne xale bu ndaw la xamul dara léegi yéen lan ngeen di def amu leen benn pexe léegi amoon ak ñiy liggéeyal église bi ndax da nga da ngeen a bëgg ma wax ni ñoom yéen ñi doye da ngeen mënu leen a at yi ñu leen doon fay lépp doon doon financé ci yéen li ñu bëggoon mooy bis bi tey bis bi lañ bëggoon ngeen siggil ñu ci tey mi wane seenu lot wane ni mënu leen dara loolu war ngeen ko rutuwaay a ah, mbokk yi gis ngeen ah, nag mer na nee na at yi ngeen nekk ñun ñëpp li ñu doon xaar mooy bis bi tey kon waru leen ñoo rusloo waru leen ñoo gàcceel إله أهل مصر المعظم الحاكم أمن حوتب الرابع ومرافقوه يدخلون الآن يلا جيغا خامني موي يلا مصر boobu bu ngeen ko déggee mooy mbiib gu régoogu rek mooy kilifa gaa ngi dugg si القصد من دعوتنا للكهنة وللمعبرين وللعلماء وأشراف طيبة ak ah, ci labbeeg sirikat yi ak kilifay diiba yëpp mooy ñu nattu xale bu góor boobu nga xam ni firikat la mu wax ñu nag nan la firee suñ gént ga tey nag ñi teew ci fii yëpp loolu mooy sabab bi ñuy li tax ma teewal leen fi mooy ñu wax xale xool ndax xale bi wax na dëgg wala waxul dëgg nga joxe ne déggal nag pour ñu dogal usatif ah comme mbokk yi comme que ñoom woo nañ leen déglu leen ay jamono ñoom mënuñoo indi benn preuve ci tontu bi léegi nag ñu ngi noonu di dugal Seydina Yusuf alayhi salaam pour nag mu wax moom gént gi lan lay firi ginnaaw bi nga xamee ni firikat yi labbe yee ñoom tële nañ waaye mbokk ñu xuntu yu ba tey kii àttee misra yàlla ju mag ji ma kii àttee misra ameen xawtin ñu koy nuyu xoolal jaxase gi Yuzarsif def na ci ay at yu bari ci kaso bi waaye ba tey jàngagul nan la yoroo koo ay la yàlla ji waaye ni ñuy respecté yàlla ji mu ni yéen ni ngeen jàppee rokoo mooy da ngeen di rokoo ay yàlla yu bëree bëri waaye man benn yàlla rek laay sujootal benn rek waaw yéen na ngeen ko firee ak ak na ma amee du noonu damay bañ nag euh, kilifa gi moom firee ko ni nga ko waxee jàpp ni moom ñàkk respect la waaye du ñàkk respect léegi mu ni li nga xam ne mooy aaday dëkk bi ñu xamoon ko. Hmm? loolu nag ñoom li aaday dëkk bi li ñu ko jàppee mooy ñàkk sujootal kii moom ñàkk respect la. mu ni bu doon labbe bi yow li nga wax looloo am kon yow di nga bu doon loolu la da nga rukkoo al jigéen ñi ah ñëpp reetaan nañ ko wax dëgg yàlla. جميعكم تعلمون أن قصدي من إقامة هذا المجلس doon ñàkk respect la kon rukkoo al nga jigéen ñi bu yàgg ñëpp xam nañ li tax ma woo leen fii mooy léegi damaa bëgg a xam firi gént dama doon sama gént ga lu koy firi. sikki sàkk néewul ni ñi nga xam ne ñooy firikati gént yi dëkk ci dëkk bi ñoom lottu nañ ci firi sama gént gi mënuñu ko. loolu mosuñu koo foog nag yu versif léegi moom nag ñu ngi koy déglu pour natt ko ba xam léegi nag kàttanam la ñuy bëgg a déglu ba xam lan la gént gay firi ñu bari xamoon ngeen déggoon ñëpp sama gént gi ñu ko waaw waaw gént gi kay moom ñëpp déggoon nañ ko moom dégg